jamono dafa dox ba am fu mu ñu tolloole mu mel ni nag des ginnaaw dafa waratul ci ñun administration du commerce yéeg ni dafa war a yeesal ay jumtuwaayam gën a xereñ gën a am information bi gën koo peek ngir suy décider mu yomb xam nga wax nañu ni 35000 boutiques moo ne ci Sénégal ci recensement ñun dañoo jàpp ni ëpp na ko lool kon faw ñu gasaat ko pour xool lan la war a mën a joxe moo tax nu ne nañuy defaraat suñu jumtuwaay yooyu indi ay QR code QR code yoo xam ne bu ñu ko tafee dañu mën a xam ne di boutique sàngam barab sàngam boutique sàngam a fa ne diw sàngam moo ko moom day fekk day tax nag état mën a def la muy war a def ca ca kookee bu dee kooku amul registre de commerce mu mun koo jàppale mu am registre de commerce bu dee amul NINEA mu ne ko ah foo nga formaliser wu nag mu am NINEA nag consommateur ñëw na foofu it ñu def ko fa naka noonu moom itam mën na del QR code bi bu ko bu ko joxee dañuy xam ni kooku yor na loo xam ne wala jaayee ne loo xam ne baaxul loolu nag moo waral ñuy def dispositif de modernisation yi moo tax ñu suub ci ay volontaires de la consommation muy ay ndaw yoo xam ne ci wàllu xëy ndaw ñi lañ leen jëlee ñuy dooleel administration du commerce nga xam ne ñoom dañuy dem wuti ji information ñëw jox leen ko ñoom it ñu jëfandikoo ko ni ko war a jëfandikoo kon commerce bi nga xam ne dañ koy visiter mooy njaay ak njënd ci lu jëm ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan ak loo xam ne jëmul ci lekk ak naan maanaam produit non alimentaire loolu it daañu ko def ci euh, ñoo xam ne ñoo niroole la ñuy def ak ñoo xam ne niroole wuñ ko waaye daañu ko def ci pàcc yi nga xam ne moo am ci commerce te ñu reconnaître ko noonu mooy importateurs yi ñaata lañu fan la ñu ne lan la ñu lan la lan la ñuy lan ci seen xayma lu ñu doon. Euh, grossistes yi naka noonu ñu def liggéey boobu demi grossistes yi ñu def ko naka noonu détaillants yi ñu xam leen loolu nag lu am solo la ndax moom mooy tax ba suñuy décision buñ ko jëlee dootuñ fausse doo am doo am fausseté première phase bi ñu ngi ci marché yi dañ ne nañ door ak marché yi dakaar région am na lu ëpp juróom-ñaar fukki marché juróom-ñaar fukki marché yooyu mosuñ cee dugg duggin wii nii ba bëgg a xam ci seen biir lu fa ne kon du ñàkk du mën a ñàkk ñu dugg fa duggin wii nii ngir Sénégalais yëpp xam ni seeni marché lii moo fa ne ci wàllu tom koom day tax ñu gën a mën a wax ak waa bitim réew ci potentiel bu fi ne dana tax it bu ñu toogee di bëgg a décider si ñoom li ñu ku nekk sa cër lu mu tollool rek ñu war la koo mën a jox xam nga loolu la ñuy wax équité waaye li koy waral mooy données yoo xamante ne kenn du ko laam-laame donc phase bu njëkk bi ñu ngi ci Ndakaaru ñun am nañ lu tolloog vingt six marché ci biir dakaar département ci soixante dix yi Pikine am na Géejawaay am na Rufisque am na Kër masaar am na ñoom ñëpp nag li Dakar di def nii la ñuy defandoo ñun ñoo lancé waaye ñun ñu ñëpp tam dakaar bu ñu lancé ba noppi région yi dañuy suivre ñoom ñëpp ñoo jëlandoo su ko defee suñ ci noppee ci biir marché yooyu ñu commencé nag deuxième phase bi dugg ci boutique quartier yi dugg ci boutique fu mu mën a ne dugg ci centre commerciaux yi nga xam ne daañ mën a wax dëgg yàlla peeg li nekk ci commerce bi. waaw ñi xam ne dañoo xaw a ragal damay dalal seen xel dama lay wax rek ni la monde bi léegi doon na monde boo xam ne kenn mënu fee rëcc ñun ñii ñëpp si ñun ñii ñëpp xam nañu fu ñu taxaw nii di wax ndax portable xeetu portable yi ñu yor donc traçage kenn mënatu koo bañ ci monde bi monde bi moo dox ba yegg si foofu. beneen bi mooy sénégalais ci boppam moo ragal changé waaye nag faw ñu am un peu audace xaw a jéem a pousse tuuti bouger lignes yi loolu da ciy am solo kon loolu. lu am solo la loo xam ni moom moom moom laa leen di wax ñu dalal seen xel xam ni wax dëgg yàlla euh, ab liggéey la rek boo xam ne dana leen jariñ sax ñoom li tax mu leen di jariñ sax ñoom mooy euh, ñoom tey bu ñu jëflantee ak ay client client bi mën naa ñëw scanner bi xam ni kii fii la ne su fi bëggee dellu si bu naree réer day ñëwal boppam te du réer bu toppee géolocalisation bi te loolu nag am na solo ci moom dax da koy indil. leneen moom itam mën na koo yónnee ñu bari ba tax na adresse am dañ koy xam euh, leneen la ci des mooy état it dafa am sañ-sañu xam kenn ku ci ne foo ne ni mu xamee kër yi seen numéro ni mu xamee kenn ku ne mu jox la numéro carte d'identité noonu la war a xamee boutique bu ci ne fa mu ne mu jox ko mu mu mu jox ko gëddam su ko defee mu mën a interagir pour moom pour ñoom gën leen mën a defaral it lu ci am solo la. waaw kër kot yi du ne day dakkal augmentation prix. waaye li may wax mooy QR code dana tax ba réclamation boo xam ne bii nit def na ko su ko neexee bu kanee QR code bii dana permettre ñu mën a déployer wu normalement ba xam loolee lu mu doon ndax nag yenn saa yi nga gis ku def réclamation boo xam ni mën na bañ doon réclamation bu baax ndax bu fekkee ne da fekk fekk fekk part d'entreprise kenn fixé wu ko mu jékki-jékki di jar prix boo xam ne xaj na jaaxal na la nga ne da ngay boole ci kooku ji mu jaay suba bu ñëwee duñ ko mën a kii ndax am na liberté wu jaay ko. xam nga le principe c'est la liberté des prix la fixation l'homologation yooyu ay exception la donc il faut loolu itam yéen sax yi ñuy tas xibaar ngeen gën koo xam